mag yi dafa yaatu ku ne xaj na ci loolu moo waral lii asalaamaaleykum mbokk yi ñi ngi nuyu mbooloo bi fi teew ku ci ne ci turam ak santam di am mbégte taxaw fii ci barab bu tedd bi di Bayakh nga xam ni gàdd gi ak jéemeen ñoo ko seq ñu dëkk dëkk bu rafet dëkk bu neex ba ñu mën fay def lii tey kon nag loolu nañ ko sante suñu mag ñi sante ko suñu waajur yu baax yi ñoom ñi nga xam ni ñoo doon dox démb tànki jàmm ak tànki rafet ci ay dëkkandoo maa ngi nuyu mbooleem kuy yeewoo bayax ak jéemeen ak gàddu ak arceer ak gox yi ko wër yëpp wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ku lim juum ñi ma fi gis bari nañu te xam naa ni Mamadou Mamour Diallo rek moo leen yëngal kon nag sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp góor far yi wax nga dëgg fii duma fi gan fii lañu juddoo fii lañu jànge màgg fi yaroo fi sant yàlla bu baax a baax a baax kon duñu gan fii lañu dëkk fii lañu bokk fu ma dugg ci bayax ku ma nuyu mën naa jaar sa sant jéeme noonu gàdd gi noonu kon nag seen doom seen jarbaat seen mag ci ñii seen mbokk moo fi ñëw ngir waxtaan ak yéen waaye fii gan amu fi maa ngi nuyu nag bu baax a baax sama rakk Talla Mbaye di félicité nag soxnaam si ana ana soxna si waaye yow ku wax yi nga wax am na solo di nuyu mbooleem responsable yi fi nekk ci ñi bokk jéemeen ak ñi bokk bayax yëpp bëgguma lim bu ma nuyoo taal mbay nuyu naa bu ma yemoon ci góor a fari mii rek ani góor kaay taxaw sama wet fii dafa am bëgg a wax nga dégg ko bu yemoon ci yow rek daanaka yëf yi sotti ndax politique la wax te gëm naa ni barab bii ñuy wax Bayax ku la ci gën a xarañ ci wàllu politique bu dee am na itam bariwul

bëgg nga ñëw dugal sa loxo bu baax a baax ci biir dolli mag yi ndax am nga fi place te danga bëgg nga nangul ma ko fii ci jataay bi. Euh, nangul naa la ko fii ci place bi danaa la jàppale. mën na noo wax ne tey. Mamadou Mamoun Diallo yaay borom Louga. ndax da nga def loo xam ne nii kenn defu ko bàyyi woo ba jiite dara ci biir door def dara Louga ko. ba nga deful ba nga nekkul dara ci Louga ci nga def Louga dara. ñu waxtaan ci ngor ci jàmm et dans la droiture aussi. dara loo xam ni dafay xajam néewuñu lu dul dëkk alxaq nag tey jii dafa gën a fay muy Mamadou Mamour Diallo mii nga xam ni fi muy jaarale nit day am suivi. maître Gabi Sow sama rakk la. dëgg la. ko gërëm. dafa xam lim rakk war a defal mag mu def ko. li fi xew yëpp ay surprise la lu ci bare bari bii ci guddi la ko yëg kon nag maître je te félicite pour ton travail pour ton engagement à mes côtés maa ngi lay féliciter bu baax a baax di wax ni kontaan naa ci yow ndax nag wolof moo ni Modou Mbaye bu lëg lekkee alom na ko gërëmee cooy cooy ñoom taalamay ñii ak ñi ñu àndal

bay ci sa weyu tànk montagne mat na bés li ki tey dëgg la ñu fas yéene ànd ak dëkk bi yëpp ànd ak koñ bi yëpp jublu fi nga jubal sa loxo fi nga joxoñ fi nga bëgg a yegg ci loolu la ñuy dox loolu lañu ñu nar a liggéey ci sa gannaaw lañuy nekk ci ga gannaaw la ñuy topp ba bés ba. ak ci loolu waaye. dafa ni bay ci sa wewu Mamadou Mamour Diallo bu dëkk bépp àndoon ak mom ba sax jox ko limu mu bëgg te gàdd gi jéemeen ak bayax ak montagne ñu ak mom loolu amul njëriñ kon nak mobilisation bi ngeen def tay je confirme les propos de maître Sow effectivement le quartier montagne est aujourd'hui dans la poche. Maître Kabissaou. salaamaaleykum waa dolli Macky am ngeen gan tey gan goo xam ni moo indi boppam gis li Mamour Diallo di liggéey ci luga ak ñu set ñi mu àndal man ku ma xam-xam ni damay bañ kenn moomu ma gis vision bi Mamour Diallo am pour defar Louga mayewul xaalis mayewul jasneer bopp yi lay defar ak Louga loolu moo ko ñor. man liggéey lu ne nag ci Moustapha Diop def naa ci lu ne 2014 ba tey rendu wu ma fa ma toogoon jógu ma fa tey nag maa jóge foofu ñëw ci dolli ma kii. Mamadou Mamour Diallo. Talla Mbaye maa ngi lay sant parce que yow responsable bu dëgg responsable bu nangoo sonn nga ku nangoo ñàq nga te kuy liggéey te doo tricher nga sama xale yii ma wër umpule wu leen ni def nañu lu ne pour ñëw indi la ci biir mouvement Dolli waaye ay nitu principe nitu principe nga xëy na loolu moo waral nga yéex a ñëw waaye bi nga dugg see ah mbokk yi ñepp xam nañ ni taala mbay dugg si na taala dondina na waaw waaw dolli na taala dolli ki may bëgg wax nak moy ki waral li lepp muy président Mamadou Mamour Diallo kooku da walu ko bëgg légui sank ba tay maa ngi di déglu ñepp naan maire bi dañ koy jël dañ koy jël man de ban ko waxee ci xel mu dal mësu jaka am moy xol le tribune bi ni fete rek xol le tribune bi ni mu jàkkaarloo bu ñu doon dox di dem jëli maire bi duñ duñu ko day def direct dem. yakar na ni meeting bi gëna a ci histoire du Sénégal fi lañ ko défé ci Louga ci 2016 waxuma ko de El Hadj Mansour Mbaye ko wax waye meeting bi itam gàcce gàllam ye dafa am fuñu jëm mouvement Dolli du ay caaxaan. mouvement Dolli du ay fo bi ñu koy sos en 2016 lu ne dégg nañ ko fi waaye boo bag ba tey Lat Joor ma dañ ko laaj loo bokk ak Demba Waar mu ni xanaa yàgg maag moom ba tey waaye xam ngeen ba ñu sosee mouvement Dolli maa ngi yéen ba tey. am alal am jàllu kaw dem. am bëgg na ba tey.